أزير مع الأبرار حين أزير وزن العداني هناك أزير أزير مع الأبرار حين أزير asalaamaaleykum bokk jullit yi ñuy déglu ak bokki taalibe yi jot nañu ndigal ci Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak jaar nag Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte parole xalif général des Mourides yàlla na fa yàgg loolu te ànd ak wér waaye ñu ne ci kilifteefu Serigne Fallou Mbacké imam mu sëñ Abdou Khadre ak kan nag teewaayu Alaaji Mbacké yi fay représentant xalif général des Mourides ci Ndakaaru ak lu ñu jëm nag ci bis ba ñëpp doon nit muy le 20 ak le 21 septembre ca place Diamalaye ajarat Sodou Khouma ak kuréelu julli géej yëpp am ànd koog sëriñ yi su jóg isbu tarxiya mi sëriñ Muntaxa jox ndigal ni dem leen ngay ànd ak soodo xama liggéey liggéey bi ren nag dafa am innovation bu rëy bi ci am ndax sëriñ Muntaxa dafa wax ni na doon bisu sikkar ak alxuraan ak jàng xasida ñu ànd koog nag sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Soy bu Mbàkke digal na taalibeem yëpp fu ñu ne ci biir Ndakaar ñu ñëw teewe bis yooyu ak kuréelu xasida yi ni ko sëriñ Muntaxa waxee na doon bisu xasida ak alxuraan ak sikkar waaye xam nga ne nag la septembre moy bisub mam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy def ci ndigal nak seigne amdou modou Benda waye nak seigne Cheikh Assou ndjay mo fay tew ñaan yàlla mu yegg fe tew ànd ko bokkam ya waye nak di bàyyi xel bu baax seigne salim Fall mom seigne modou mustapha Fall mom ci kuréel bi la bokk waaye xam ngeen dañ def vernissage exposition bu rëy bo xamni le 20 lay doon seigne bi da joxoon ndigal na ci ñëpp tew waaw kuréel di ko julli géej gi nag nee ci coow mboolem daayira maam jaara fu ñu ne ci biir Sénégal ak bitim réew na Dakar ñu ci wa jamalay wa jàmmalaay waa wa bi way wa waa Grand Médine yëmbal Parcelles Assainies ba Pikine ndax ñoom tubarkàlla ñooy tooru gaññi rawatina waa Parcelles Assainies kon nag waa jàmmalaay tubarkàlla ci taxawaay bu nga xam am nañ ko ci liggéey bi di ñaan yàlla defal nu jàmm bis daal mu ngoog le ak le 21 septembre ca place jàmmalaay bu ko kenn wuute wa nasrin wa huwa ni'ma